asalaamaaleykum sama gars yi dal leen jàmm ci seen podcast Tok Tek Music di podcast bi ma jagleel eh, lépp lu jëm si musique lépp lu jëm si technique ki leen koy defal di eh, seen artiste beatmaker technicien du son de Agar Beats eh, voilà donc dal leen ci premier épisode bi di nga xam ne on va parler des métiers du son et de la musique eh, bëgg naa tey suma paree ak yenn genre ngeen xam ne eh, musique nekkul rek soit musicien bi instrumentiste bi walla ingé bi wala artiste bi wala beatmaker bi rek ñoo nekk ci biir musique bi am na yu bëri bëri ci biir musique ñu nekk ci biir son nekk ay activité yoo xam ne tey jii ni képp koo xam ne bëgg nga yëglu yëngu ci musique sans pour autant nga nekk au devant de la scène tu peux faire partie des gens qu'on appelle des hommes de l'ombre des techniciens nekk ay nit ñoo xam ne tey jii nii sans eux franchement franchement les choses seraient très compliquées pour euh, le secteur du son et de la musique voilà donc euh, sans plus tarder dañuy ñëw ma présenter leen les différents métiers qui existe ou bien que vous pouvez faire en tant que voilà, personne euh, intéressée au son, en tant que technicien en son ou le beatmaker vous pouvez ou, hmm, voilà, ultérieurement. Voilà, il faut savoir que voilà, dans les métiers du son, il y a plusieurs secteurs d'activité. maanaam am na secteur bi nga xam ne dañ koy wax musique enregistrement et euh, spectacle vivant maanaam soit euh, secteur studio wala secteur live spectacle vivant wala euh, am na rajo wala télévision wala cinéma donc bu ñu commencé ci secteur studio live wala studio maanaam musique enregistrement et spectacle vivant donc te jii nii de ay mën na nekk ingé mën na xëy nekk réalisateur wala directeur artistique producteur ça vous connaissez ingé son on connaît tous réalisateur en informatique musicale donc euh, day nekk koo xam ne euh, voilà di jublu lépp lu jëm ci développement de logiciel xam nga maanaam tey jii ni ñun beatmaker yi euh, léegi ñi ñuy utiliser yëpp xam nga interface yi ñuy utiliser yëpp ce sont des réalisateurs en informatique musicale ñoom ñoo koy defar donc euh, loolu aussi ça mën mën nga ko nekk ci biir métier du son et de la musique en même temps tu peux aussi être technicien et assistant ou bien assistant son technicien du son ou assistant son euh, par exemple moi je suis technicienne et assistant son j'ai été initiée aux techniques du son en spectacle vivant et en studio mën nga nekk aussi régisseur son mën nga nekk sonorisateur bu jëmee ci wàllu design sonore maanaam lépp loo xam ne di jëm si conception sonore ak design sonore maanaam tey jii ni ki nga xam ne day defar ay musique pour ay publicité day ay musique pour ay jeux vidéo wala euh, voilà di dem di di créer une musique pour des supports autres que par exemple pour des artistes etc donc loolu yëpp tey mën nañ ko tënk si euh, partie design sonore multimédia voilà tout ça là am na partie bu ñuy bind partie radio donc soit da ngay nekk euh, technicien son radio voilà ce sont les mêmes attitudes que tu vas avoir euh, pour le spectacle mais juste que ce sera beaucoup plus cadré pour tout ce qui est radio pour le cinéma et l'audiovisuel mën nga nekk chef opérateur wala preneur de son mën nga nekk bruiteur mën nga nekk monteur son wala euh, yi nga xam ne mooy liggéey ci post prod maanaam bu bu ñu bu ñu bu preneur bi jëlee vidéo bi pare et yow nga war a nekk foofu nag di mixer xam nga defar lépp niveler volume bi xool voilà par rapport ak support yi ñu koy dugal voilà euh, ndax respecté nga euh, voilà volume son bi ñoom ñëpp lu ñu soxla et cetera donc ça c'est tout ça là c'est le travail de la post-production mën nga nekk aussi euh, superviseur musical voilà mais koo ne day ñëw xool lépp lu jëm si musique bi si film bi et tout muy ñëw di intervenir di wax ban musique lañ war a def fii nii voilà ban et cetera di joxe ay ay ay ay directives par rapport à l'image bi ñu war a jox ci ay passages et cetera loolu ci wàllum cinéma la voilà am na partie acoustique partie acoustique mooy euh, lépp lu jëm si wàllu traitement. Euh, et d'espace. Par exemple euh, un acousticien musical moom mooy ñëw xool lépp li nga xam ne day ñëw par exemple war a déranger benn espace boo waree defee musique voilà par exemple ici au Sénégal on a presque pas de euh, de d'acousticien voilà gars yi bu ñuy ubbi studio dañuy dem woo menuisier bi mu daggal leen dagg ñu def ay forme defar ay affaire yu nice nag mais euh, à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ça sert rien parce que ñu ko ci benn mesure ils n'ont pas fait de calcul ci espace bi xool wu ils n'ont pas testé leur leur espace bu xam ban endroit ak ban endroit moo am problème seen espace bi ban problème la am ba ñuy def acoustique acoustique c'est pour régler un problème léegi yow soo xamulee problème mi nga ñëw bon tu peux faire un décor Là, mon Ken le s'y blâmer, tu peux faire ce que tu veux de ton studio, mais si tu cherches à régler des problèmes, il faut déjà connaître bon problème à régler. Et ça, c'est le travail d'un acousticien qui vient, qui fait les réglages, qui fait les calculs, qui vient, qui teste, qui revoit ton espace, voir l'année A, fille, des fois un problème. Euh, dafa am problème euh, par exemple euh, ondes stationnaires yi am nañ fii wala genre par exemple wala fii am na ay réflexions et cetera et cetera voilà ce sont les solutions préconisées de ni ni na wax la la nga def pour nga mën a régler problème yooyu noonu euh, mën nga nekk aussi sonorisateur d'espace public voilà c'est un technicien boo xam ne day ñëw pour teg li nga xam ne moom mooy voilà monter euh, voilà tout le système de sonorisation pour nga mën a am euh, voilà un son voilà yooyu mën yooyu tamit ay liggéey yoo xam ne mën nga ko nekk si euh, si si si biir métier du son et de la musique pourquoi euh, c'est important de savoir euh, tout ceci Parce que tey dañuy gis par exemple euh, ñoo xam ne ils veulent coûte que coûte coûte que des artistes pour nekk si biir musique ou bien y a y a des y a des yoo xam ne coûte que coûte ils veulent placer des sons à des artistes pour pouvoir exister Euh, malheureusement, c'est, je ne veux pas être pessimiste, mais je crois pas que ñun ñëpp et, et c'est même la, la vérité ñun ñëpp mënuñu teg ci musique en tant qu'artiste c'est pas possible il faut que am ñu nekk artiste am ñu nekk les hommes de l'ombre c'est-à-dire les techniciens tout ce qui euh, qui se lie à ñi war a tax artiste bi voilà mu mu nekk ci kanam parce que c'est son rôle d'être devant la scène yow nga nekk euh, beatmaker c'est vrai aujourd'hui en 2022 un beatmaker est également un artiste ça on n'en disconvient pas mais il faut pas oublier que ni voilà avec le marché qu'on a surtout ici au Sénégal euh, c'est un métier boo xam ne amagul amagul gëdd bi nga xam ne tey jii nii un beatmaker mën na bàyyi léppam nekk juste pour produire des sons fini. Euh, bon, ce sera certainement un autre débat à, à, à, à soulever, c'est-à-dire euh, les conditions précaires des, euh, des beatmakers au Sénégal. loolu si beneen débat laa koy laa koy wax mais juste pour dire que tey jii nii koo xam ne commencé nga initié wu si beatmaking ba commencé xam un peu les rouages xam exactement xam nga comment ça se passe mën ko commencé dafa ay musique yaa ngi. diversifier ses productions mën nga def musique film autant pour moi nga def musique ay trap hip hop et mais essaye de de de diversifier tes activités bañ ko concentrer uniquement ci artiste bi comme ni ma ko cité tey jii nii il y a pas mal de choses que tu peux faire avec la musique bien vrai que euh, li ñuy wax les bases les prérequis prérequis de formation académique daf ci am solo pourquoi académie daf ci am solo parce que le son c'est de la physique son physique la donc man en tant que littéraire man littéraire bu bon la j'ai fait série L2 euh, littéraire la mais un peu scientifique quand même <laughs> voilà je sais que euh, à travers les formations que j'ai eu à suivre, je sais que le son mën nañ la ko expliquer par exemple euh, mën nga ko expliquer à une personne lambda une personne comme moi ba nga comprendre ko mais pour nga gën ci xuus il faudrait vraiment vraiment nga avoir des prérequis scientifiques te loolu c'est pas trop tard ça veut pas dire que tu as vingt cinq ans tu as fait ton cursus scolaire en série L que tu n'es que tu es inapte à faire de la physique, c'est faux. Tu peux toujours apprendre, tu peux toujours apprendre, même à 150 ans, tu es toujours en et tu peux toujours apprendre. Si tu as toujours les aptitudes intellectuelles, tu peux toujours, toujours, toujours euh, acquérir des connaissances. Donc ce n'est pas trop tard de déjà commencer à avoir des aptitudes, des, des, des compétences scientifiques comprendre outil bi ngay bi nga nar mission voilà donc euh, am na ñoo xam ne tey il décourage beaucoup de personnes pour leur dire par exemple pour nekk ingénieur de son il faut coûte que coûte coûte que coûte am benn bac S wala benn bac S1 S2 et cetera il y a un temps oui je suis d'accord mënoon na nekk mais à l'heure où on est là en 2022 ce n'est plus une exigence hein du exigence parce que musique wala son évolué na évolu évolution boo xam ne ñi ñi doon dégg musique il y a cinquante ans par exemple de bu ñu leen dékkee la tonne di leen déglu la musique qu'on fait actuellement le son qui existe actuellement ils comprendront pas wala ils pas la nature du son qu'on explique parce que ça change, les oreilles changent, les perceptions changent. Et aussi, bon, les réalités, ça change. man bokkoon naa par exemple si ñi nga xam ne dañ doon wax ne genre bon man musique dama koy def nii rek mais soxlawu ma si xam euh, euh, la théorie carrément quoi je disais bon la pratique bon ça me suffit je veux faire une chose je le fais après bon dara euh, safee évoluer plus tu sais que ni c'est important nga creuser si li nga nekk pour xam exactement lan moo et ça je l'exhorte à tout le monde bien que les métiers sont là dooy dégg ay technique technique technique technique ok d'accord mais bu mu la si tu as vraiment envie d'évoluer et de pouvoir euh, plus tard choisir un de ces métiers-là pour te reconvertir, pense à le faire dès maintenant. Pense à le faire dès maintenant. di ci gëstu et voilà quoi jox ko ak xam foo dégg ne am na ay formation yu ñu maye nga dem pour xool qu'est-ce qu'il te propose et que yow tamit ngay de say propres recherches pour mën si euh, mën si mën si jële njëriñ je pense que ça c'est plus important donc euh, encore une fois euh, les métiers du son là ku ci nekk mën nga xool lan moo si gën a arrangé lan moo si gën a arrangé je vous euh, genre euh, tey jii tu es beatmaker mais boo tëddee boo tëddee sa kola di nga xam ne carrément bon man maa ngi def beatmaking bi mais euh, gisuma ci sama bopp quoi mais bugguma génn musique quand même parce que j'aime trop la musique est-ce que duma dem xool xam nga si côté spectacle bi noonu lay nekkee benn régisseur son wala benn technicien son et cetera et xam nga ah voilà nga gëstu découvrir et je suis sûre et certain que dinga gis li nga xam ne moom nga mën a def te mu nekk loo xam ne tu vas l'accepter euh, de manière très euh, positivement donc c'est la fin de cette euh, première de ce premier épisode dédié au métier du son. Donc, euh, prochain épisode bi ce sera euh, sous jours donc dina fexe régulier chaque 15 jours ma dugalal leen benn épisode comme ça euh, voilà mu nekk seen émission boo xam ne dinaa fexe di ko dugal chaque euh, quinze jours à dix heures à à douze heures autant pour moi à midi ci seen plateforme yi nga xam ne jot naa leen koy wax ba pare mu YouTube euh, Audiomack ak euh, SoundCloud donc j'essaierai de faire le maximum pour pour mën ko dugal Spotify aussi en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté on se donne rendez-vous très bientôt peace